katikale ungela sabalakata la kamwele ketululu que ketululu kilapo Jatuh. que jeng jeng jeng jeng Jato. Kokala. la. Ismaila. Ismaila. Aw. eh boy, ak man Mor. eh man la Pape. te jël buntu bi way. Wa mais yeen. qu'est-ce qui se passe là? la moo xew. Jato. eh def def def def def la nank na. mais Jato. ma ma Mor wàccal Mor wàccal wàccal waay. lu ko dal non da ngay daj sama buntu.

eh puusal puusal puusal. kan moo dee fii nii ba ngay génn. Eh, ay ay kenn deewu fi puusal laa wax puusal puus leen. la ma bàyyi la ma rek ma def la laay la laay. ma ne plombier pardon pardon pardon puusal puusal. puusal. voilà taxawal fi taxaw fi fi.

loolu dañ ko fi war a ba dañ ko war a bàyyi pour le moment parce que xam ngeen ni ki coronavirus moom a dëgg yàlla moom du moom kese mooy dox mu mag nit lay àndal nit moo koy yóbbu mu déposé ko fu ko neex non non no da ngeen di dégg rassemblement la ñu bañ yëg ngeen ko dëgg ngeen ko mais da ngeen di dëgër bopp rek rassemblement bu ñu koy tere ci jàkkee nañu wax ay ngénteeg ay xam nga ay dëje consort nangam ak nangam quoi mais toog caañ ñi tere rassemblement jàkk ñi tere ko église ñi bàyyi ko si jotaay loolu moom mënul nekk fépp lañ ko teree. ni nga ni nga changé. ok koy man sax damaa changé changé wu ma de mais si réali réalité laa leen nekk di wax feebar bi dañu waruñu nangu muy tasaaru ci biir dëkk bi. te loolu noonu toog suñu kër yi rek toog benn place wàññi suñu dox yi dox farata rek ñoo dellu sa kër loolu rek moo ñu mën a moo ci moo ñu moo suñu mën moo moo ñu mën a jàppale. voilà jërë ngeen jëf ba beneen jamono man nag toog naa sama kër yéen bu fekkee ne da ni def lu leen neex continuer leen mais pas sama kër jërë ngeen jëf. mais gars yi ay ay wax quoi xaw ma feebar corona eh, eh, xaw eh, at ataaya. booy gis nga wax bu dofee sax noppay ko a dégg ñooy nit yi kii nii waxul nit dëgg lañu wax ñun dañoo war a toog suñu kër yem benn place parce que suñ fi bëggee nekk di dem ak a ñëw gauche ak droite. non man nañ jël fièvre bi yob ko suñu kër ta dara gënut a ñaaw nag ñu né fièvre bi ya ko duggal sa kër wàll ko sax njabot yow tan yëpp tok ñu di caañ. boy même bu ñuy tok tan yëpp di caañ man sank ya am wo téléphone. waaw légui na ku né tok këram ba yépp weesu bon du tere suñu and nek suñu and ba légui téw nga nek sama gane téw ki nak gane téw ñun ñëpp ñu nek lu ñu nekkoon mais na ku né tok këram ba fièvre bi weesu parce que tam fièvre fi mu toll ni liñ ci mën a muccal ñun ñëpp mooy toog benn place te mettre contact yi ku su toog sa kër sàmm say njaboot sàmm sa bopp. waaw kon man sama caañ la naa ko naan ji sama sa kër mën naa jënd caañ mais gardel un eh, bi na ku ne may sa morom un mètre. naraay jub kon loolu la. Eh, laata ngeen dugg seen biir kër. raxas leen seen loxo ak saabu ak conservé ba mu set wicc wicc wicc ngeen bañ a wàcc feebar bi seen kër